la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah auzu billahi mina seytaani rajim wa inni ya unisuha bika wa suriyataha mina seytaani rajim rabbi auzu bika min hamasaati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yaxduroon ñi ngi ñaan cheikh mouhamadul muntaxa xalifatul am fi tarixatil muridiya na fi yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax sëñ am di faal mum sëñ muudu faal mbenda mbenda jaxu nay ba saala penda mi des si ngaraaf ardoo nga maafaan waaye pël baa nga mboobeen Modou Mbenda Fall jàmbaari carrière waaye Modou Mbenda Fall sey noon du ñu ree di ko ñaanal sëñ Amdi Fall Modou Mbenda naaru maam Khady Niang xalifa général de Baye Fall waaye di ko ñaanal bu baax nemal xalifatu Serigne Cheikh Bintou Fall xalafan mat na xalifa ci lislaam ku mel ni moom jafe na Serigne Cheikh Bintou Fall xalifa Cheikh Mouhamadou Abdoulahi ma doon jàmbaar ja bàyyi Serigne Cheikh Bintou Fall ma doon yaakaar ja mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew Euh, bu ñu tollee ci waxtu wii xel yépp dem ci wëlisu maam Cheikh Rahim Fall wii nga xamante ni Cheikh Modou Abdoulaye sunu jàmbaar ja moo ko tàmbali woon képp ko fi nekkal Cheikh Rafal sunu boroom dogal at mii nu génn muy daaw sëriñ Cheikh Bintou Fall mii xalifaam samp jëwrin ca Paris muy sunu yaay soxna Amy Yalla Ndiaye Baye maam jaara jëriñu Touba ca kanam Paris diaspora son am yàlla Ndiaye président association Mika France son am yàlla Ndiaye jëriñu daayira subulu salaam son am yàlla Ndiaye Paris Pôle 10 waaye son am yàlla Ndiaye groupe Baye Fall international son am yàlla Ndiaye euh, président association Mika euh, France sëriñ bi jox ko ndigal ci wëlis wii nga xamante ni at mu ne sëriñ bi dina ko jox ki fi nekkal serafal son am yàlla. di jàmbaar waaye daayira yi nu tudd ñoo ànd ak soxna am yàlla ci liggéey bi waaye soxna am yàlla at mu ne ak liggéey bu ne ak ñëm ko féetaleel ku ne xam ne ni socialu Touba ca kanam soxna am yàlla jàmbaar la ci daayira yi nu tudd at mu ne dina si jukki ay nit ca daayira muy góor muy jigéen ni leen renkat social bi yéen laa koy àndal buñ demee màggalu maam seeni bu njaay noonu ci daayira yi ñu tudd dina si jukki ay nit neen màggal gi kat yéen laa koy àndal bu ñu tuddee màggalu poroxaan jëf ji nga xamante ni dina ko jëf mu jaar ci sëñ Thierno sëriñ e, koso mi nga xamante ni mooy taawu sëñ mun Muntaxa dina si jukki ay nit ci daayira yooyu ni jëf yi yéen laa koy àndal waaye bu ñu tuddee muy wëlisu maam Cheikh Rafal tamit son am yàlla day am jàmbaar yu ci àndal bu ñu tuddee koor gi tamit. son am yàlla dina jukki ca daayira yooya am ñu mu àndal ci liggéeyu koor gi waaye wëlis maam serafaal bi ren son am yàlla ñim ci jukki moo war a jëm ki fi nekkal serafaal muy si am di faal mu du mbenda naaru maam xadiñang xalifa sandal de baay faal son am yàlla mi ngi sant mboolem daayira maam seeni bu njaay Paris diaspora di sant daayira subulu salaam di sant Paris Paul 10 groupe Baye Fall international association Mika ak mboolem daayira yi nga xamante ni soxna am yàlla ànd naag ñoom mooy ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi kiy jiital ci wëli su maam Serigne Fall yi nga xamante ni Serigne Cheikh Bintou Fall xalifa sëñ Mourou laay daaw la ko sant soxna si tàmbali ko muy première édition ren jii mille vingt 2024 soxna si ànd ak moom muy deuxième édition wëli yoo xamante ni soxna si moo koy dajale mu jëm ci sëñ Cheikh Bintou Serigne seex Bintou teg ko ci loxol baayam muy sëñ Amdi Fall Modou Mbenda xalifa général de Baye Fall soxna Amy Yalla mi ngi sant bu baax sunu jàmbaar yi nga xamante ni ñooy jàppale soxna am Yalla ci liggéey bi sunu baay bu baax bu tedd bii Baye Malick Sarr mum Baye Modou Sarr mat mum maam Sera Fall Babul Mouridine ndax maamam baayam daa amoon ngërëm ci Sera Fall moom mii mu topp sëñ Modou Ablaye Baye Malick soxna sang lay sant bu baax muy baayam di xaritam di wëlëreem bokk ci jëwriñ yi nga xamante ni soxna si ànd na ak ñoom ak sëriñ mi nga xamante ni mi ngi ci kër gi waaye dañuy dem ba pari sant ki nga xamante ni New York muy jàmbaar lool ci liggéey bi muy Adja Soxna Jaañ di mbokkum soxna si di wëlëreem di xaritam wëlis wi nga xamante ni moo jëm ki fi nekkal serafal ajaa Soxna Jaañ jëf na ci liggéey bu am solo son am yàlla njaay mi ngi lay sant bu baax Adja Soxna Jaañ New York waaye ñu ngi sant bu baax a baax soxna Fatou saar moom tamit New York la ne di jàmbaar lool bi soxna soxna si jàppee wëlis maam Cheikh Fall wii bokk ci ñi ànd ak soxna si jàppale ko ci liggéey ba liggéey bii ngeen mën a gis mu def ci lu am solo muy soxna Fatou Sarr waaye ñi ngi gërëm bu baax a baax Adja Jeewa Njaay moom tamit pare la di jàmbaar lool bokk ci ñi nga xamante ni seen teraanga ñi ñëw na ci jëf ji waaye di sant bu baax baax maam Cheikh Jaxate Amérique di taalibe sëñ Moudou laay Fall Ndar moom tamit jàmbaar la lool euh, jàpp na ci liggéey bi moom tamit liggéeyam agsi na euh, di sant bu baax alaaji Mor Samb Diagne euh, France moom tamit jàmbaar la lool di mbokkum soxna si moom tamit teraanga jim jëf ci wëlis maam Cheikh Fall wi agsi na alaaji Mor Samb soxna sang lay gërëm waaye di di gërëmaat bu baax a baax jëwriñ faatu Mbeng moom tamit jàmbaar la loolu nekk Paris moom tamit soxna si bi mu jàppee wëli su maam Cheikh Fall mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la soxna si tànn ñu war a ñu war ko gunge ci liggéey bi moom tamit jëfam agsi na ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaye di gërëm bu baax maire seen di New York ndigal maire seen ndigal euh, New York moom tamit barkeeloom tamit agsi na ci wëlis wii nga xamante nii moo jëm ci ki fi nekkal Cheikh Fall muy si Imdi Fall mu du Mbenda sonam yàlla njaay mi ngi lay gërëm di la sant waaye sëñ Adama Badiane Amérique moom di rakk sonasi di léppam moom tamit jëfam agsi na ci liggéey bu tedd bii sëñ Adama Badiane Amérique moom tamit ñi ngi koy gërëm waaye di gërëm bu baax soxna Fatou Kiné Thiam nekk pari di jàmbaar lool bokk ci jàmbaar yi nga xamante ni ñu ànd ak soxna si daaw mu àndoon ko ak moom ci wëlis wi ren jii mu àndaat ko moom soxna Fatou na Thiam moom tamit barkeeloom agsi na waaye ñi ngi gërëm bu baax Adja Fatim Diaw moom tamit nekk Amérique jàmbaar la lool wali su maam Serafal wii nga xamante ni soxna si mi ngi koy eh, jébbal ki fi nekkal Serafal moom tamit jëfam agsi na waaye di gërëm di gërëmaat bu baax jëwrin eh, Mbayang Juug moom tamit eh, jàmbaar la barkeeloom agsi na soxna sang lay gërëm jëwrin Mbayang jóg moom tamit ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant bu baax a baax waaye di gërëm bu baax jëwrin Yaasin Guèye Paris moom tamit jàmbaar la moom tamit jëfam agsi na ci liggéey bii nga xamante ni soxna si war na koo jébbal sëñ Bindu sëñ Bindu jébbal ko si Amdi Fall Modou Mbenda waaye di gërëmaat bu baax jëwriñ joor juuga moom tamit nekk Paris di jàmbaar lool bokk ci ñi nga xamante ni soxna si tànn na leen moom tamit seen jëf jëfam agsi na ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant waaye di beral cant ndey mbuub borom këll gi moom mooy numéro 2 ci soxna si di jàmbaar lool daara ji muy daayira subur salaam Paris Pôle 10 mboolem yëgle yi ak mboolem information yi aar bu xëyee fajar gu ne soxna Ndeye Mboup dina ko dugal nekk fii ci senegal Dakar soxna Ndeye Mboup borom këll gi ñu ngi koy gërëm waaye di gërëm bàjjan ami siis moom Dakar la ne di mbokkum soxna si moom tamit jëfam agsi na ci liggéey bii nga xamante ni war naa jëm ki fi nekkal Serafal muy wëli su maam Serafal bàjjan ami siis di gërëm bu baax soxna Maguette côté Ndiaye lingeer lingeer bi soxna am Yàlla mi ngi lay gërëm ak waa Jolof yëpp rek soxna saa lay gërëm di la sant social bi jàmbaar nga ci waaye wëlis wi tamit waa Jolof jàmbaar lañ ci soxna Ami Yàlla mi ngi lay gërëm eh, di sant bu baax waaye di gërëm bu baax a baax soxna ñaaña Jóob moom tamit jàmbaar la bokk ci ñi nga xamante nii at mu ne wëlisu maam Serafal wii seen loxo ak si ci soxna ñaaña Jóob Paris soxna saa lay gërëm soxna saa lay sant nekkin wi ngeen nekk foofu Paris lépp rafet ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yokk say xéewal waaye di gërëm bu baax jëwrin jëwrin As Ndiaye Italie moom tamit jàmbaar la jëwrin As Ndiaye Italie moom tamit jàmbaar la jëfam agsi na ci wulis wii nga xamante ni moo jëm ki fi nekkal serafal muy sëñ am di Mudu Mbenda waaye di gërëm bu baax a baax jëwrin Maam Jaara saar moom tamit bokk ci daara yi muy daayira subulu salaam muy daayira poldis talaata ju ne mu bokk ñi def talaatay maam Sera Fall soxna maam Jaara saar moom tamit jëfam agsi na waaye kenn du fàtte Kiné saaliw Kiné Saliou borom waxtaan wu neex wi Kiné Saliou ndakaaru moom tamit jëfam agsi na daara ji saa su ne mi ngi wettali daara ji di ko gunge walis wii nga xamante ni moo jëm ki fi nekkal Sera Fall soxna Kiné Saliou moom tamit jëfam agsi na waaye di gërëm bu baax a baax soxna Marème Mbuub di rakk ci soxna Ndey Mbuub borom këll gi moom tamit ñi ngi koy gërëm bu baax a baax soxna Mare Mbuub di rakk ci soxna Ndey Mbuub borom këll gi dakaar moom tamit jëfam agsi na ñi ngi koy gërëm bu baax eh, di ko gërëm ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaye di sant bu baax soxna Astu Mbaw soxna Astu Mbaw eh, buñ ko tuddee nekk jàmbaar lool nekk pari eh, di jàmbaar lool ci liggéey bi nga xamante ni soxna am Yàlla Njaay mi ngi koy liggéeyal maam Serap Fall son as mbaw nekk Italie ñi ngi koy sant bu baax ñi ngi koy gërëm wëlis bii nga xamante ni son am yàlla war na koo jébbal ki fi nekkal Serap Fall waaye son as mbaw Italie moom barkeeloom agsi na ñi ngi koy son am yàlla mi ngi koy sant euh, mi ngi koy gërëm son as mbaw euh, Italie soxna am yàlla mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm euh, jëmm yi la soxna si tànnoon ren ñu ànd ak moom ci wëlisu maam Serap wi soxna saa ngi leen sant soxna saa ngi leen di gërëm ndax walis yi fi mu jëm mooy ki fi nekkal Serap Fall fi muy jaar bunt bi mooy Serigne Cheikh Bintou Fall mi nga xamante ni bàyyam bu baax bi sëñ Mourou Ablaye Fall Ndar naaru maam Fatou Kobar moo ko tàmbali woon sëñ Mourou bàyyi koo fi sëñ Cheikh Bintou ko sëñ Cheikh ba ci tey jii bàyyam bu baax bi muy sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda xalifa général des Baye Fall soxna am Yàlla Ndiaye di liggéeyaakoon maam Seynabou Ndiaye. waaye di soldaaru maam seeni bu njaay waaye di ambassadeur maam seeni bu njaay teraanga yii ngeen ngeen gis fi mu jëm mooy ki fi nekkal serafal eh, ki nga xamante nii mooy sëñ Amdi Fall Moodu Mbenda dinu ma naaru maam Xadi ñan ku ne xam ne nii sëñ Moodu Fall Mbenda 1904 la gane ca Tassinère Gandiol bàyyi ko fi 1955 bi fi bàyyi ko sëriñ Cheikh Moodu Mbenda jàmbaar ja wutu ko 55 ba 86 mu jël liggéey bépp rek teg ko ci loxol taala mu du mbenda eh, jàmbaar ja mu puus ko 86 ba 96 nag la jox rakkam xalifa gi muy sëñ am Fall mu du mbenda xalifa sendal de naaru maam Khady Dieng moom laay wax naan mbenda jaxu nay ba saala penda mi des si ngaraaf waaye ardoo nga maafaan waaye pël baa nga mboobeen mu du mbenda Fall jàmbaari carrière waaye mu du mbenda Fall say du ñu ree kon ñi ngi santaat bu baax sunu xalifa bu tedd boobu muy sëñ Amdi Fall mu du mbenda eh, xalifa de Baye Fall ndax koddaay yii Baye Malick dina ci ñëw maam Seyni bu Njaay la tàmbale woon ba tey jii ndax maam Seyni bu Njaay molaan laan fóot fóot yëre aji màgg ji sëñ Touba euh, Xaadim Rasool kon bu ko defee dañuy jox Baye Malick Sarr mum Baye Mour saar Matt mu maam Serafal Babul Mouridine di jàmbaar yi soxna si di baayam di xaritam di wëlëreem bokk ci ñi nga xamante ni ñoo jiite liggéey bi Baye Malick asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi sant yàlla bu baax sant Cheikh Ibra Fall waaye sant bu baax sëriñ bi di dolla ni ko jëf ji ji nga xam ni soxna Amy Yàlla ni ko sëñ Xaalim waxee léegi rek dégg ngeen ko boo ko séenee muy dem ci jëfal yàlla yontu beeg sëñ Bamba ak Cheikh rek moo ko tax a jóg nuy bu baax xalif général di murit Cheikh mën Mountakha waaye di nuyu bu baax sëriñ am di Fall moom sëriñ Modou Mbend Fall xalif généralu Baye Fall yëpp noo ngi santaat yàlla bu baax di nuyu sëriñ seex Bintu mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi di liggéeyloo soxna si nga xam ne liggéey bi ni ko sëñ Xaadim waxee léegi liggéey la boo xam ne daf koo donn ci deretam wala mu donn ko ci meenam donn ko ci ak bokk ndax Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina sëriñ bi dafa jekkoon ba yàgg mu ne lépp lu may deflooti Cheikh Ibra Fall moo ma koy defal loole nga xam ne moom la moom la wax te di ko def nag fekk dafa sartaak ndax maam bu Ndiaye moo daan fóotal Serigne Touba aji màgg ji ànd kook soxna Astu Diop doomam ak soxna Khady Sarr di soxna Cheikh Ibra di doomi Sëñ Ibra Sarr Njaañ waaye sama baay nee na póot mi su ko masaa di indi bu ko aji màgg ji joxee póot mi bu koy yóbbuwaat nii soxna si def lay def day dajalewaat loo xam ne da koy jënd mbaa mu sàkk ci pexe ba mat lu baree baree bari bu ñëwee ci kanam aji màgg ji da koy fab teg ci kanam aji màgg ji li nga xam ne mooy yére aji màgg ji muy xaadimu rasul loole sëriñ bi fab ko jëriñoo ci nam bëgg a jëriñoo sama bàyyi nee na am na bés soxna Astou Diop mii nga xam ne moom maam Saliou Fall ak maam Sera Fall ñoo bokk maam Seydou bu Jaay ni ko Móodu saabay ne ma ne ko Fall mu ne ko am na póot moo xam ne de kere bañ ko yóbboo di ko jox Serigne Touba aji màgg ji danoo fekk sëñ bi mu nekk ci di tomb ak bind ak a soxna si nee na moom soxna Astou Diop fi mu raamee ba ci kees ku njëkk gi fi la yem soxna maam Seynabu Njaay moo raam ba ci kanam Serigne Touba aji màgg ji yëkkati póot mi teg ko fi kanamam waaye Serigne baa ngi tomb li muy tomb lu muy bind li muy bind soxna si sëgg foofu ni cell di ko déglu ba jotaanam jot ci mu àddu daal di siggi yëkkati kanamam daal di ko sunu ndey sama baay nee na soxna si Jóob nee na keroog soxna si daa xëm Serigne Touba di ko bàyyi bàyyi ko ci melokaan woowo di ko déglu ba mu xamee ba ximmiliku sëñ Tuubaa ne ko soxla si lii nga doon def loo ci jublu mu ne ko dara mbàkke nun danoo xam ne dul sa ndey sab jaam rek la nu mu ko wax nga dëgg waaye yombal xiyaam de doo fa gis kenn ñaar rek nga fay gis yombal xiyaam ñaar rek nga fay gis te kenn ko yaay ndeyam loolee nga xam ni moom la soxna maam Seydou Jaay doon def nag moom la soxna Ami Yàlla Jaay bokk ca waa Njale bokk ci bokk ga deretam joojee ndax ndono day folet allah kulli noo mën a def soo màggee dox si do wala wax ne saa boo màggee dox sa doxinu bàyyi boo dee jigéen ñu ne soo màggee dëbb sa dëbbi nu dey loolu moo waral soxna si lii muy def te di ko def loo ak ñii mu ko àndal te xaa seen xaalis wax ko léegi ñu day jàmbaar yoo xam ne ku ne xam na leen ku ne dégg na leen ku ne gis na leen ci li ñuy defe ak li ñuy waxee loola waral lii amaat tey lii jëkk fi tey maam Seynou bu Njaay ak euh, Touba ca kanam ak Poroxaan ak Magalug Sëñ lenn lu xew lu ne te xew ci Serigne tubaa jëm ci Cheikh Ibra soxna si def na ca loo xam ni def loo na ko ñoo xam ni ànd koog ñoo xam ni li mu bëgg la ñooñee bëgg ni mu toll la ñooñee toll moo tax li mu leen sant ñu ne ko man te di ko def ko jëf yàlla na yàlla yàlla na yàlla dolli seen kàttan yàlla na yàlla dolli seenu mën yàlla yàlla dolli seenu mën te ñu ànd koog soxna si di ko def ñu sant nag bu baax ndax lii itam li ma wax ci ndono gi daa ñëw ba ci sëñ Modou Ablaye daan def ay dampe bare bari ay yoo xam ne dañ koy ba di ko ba di ko yebaki fi du fer di ko yót sëriñ Saaliwu sëñ Abdou Khadir ak sëñ Abdou Laat bakkara bi mu fi jógee kon suñ delluwaatee soxna si jëlaat loola ànd ko sëriñ Cheikh Bintou Fall mii nga xam ni moo di xalifaam te nangul ko jëf jooju kon dañ ciy sant yàlla sant Cheikh Rafal di ñaan yàlla na ko yàgg a fekkee di ñaan soxna si yàlla na ko yàlla dooleel yàlla na ko yàlla jàppale ndax ku bëgg sëriñ bi la ku bëgg sëriñ Tuubaa la ku bëgg Cheikh Ibrahima waaye ku nangoo jëf la te jëf la ñuy fay xam naa kon dañuy wàcce kàddu gi foofu rek ndax li sëñ Xaadim waxoon ci soxna si wax ko ci liggéey bi doy na sëkk nga xam ne ànd nañu soxna si tey liggéey liggéey bi sëñ Xaadim euh, leeral na leen ko ba kenn ku ñu xam ne fàttewuñu la ndax jëfi tey la te bu ju subaa ngi ñëw yàlla yàlla jàppaleen ci barke sëñ Tuubaa barkeb Seera Faal ñu ngi sant baax sëriñ seex Bintu nag te di ko ñaanal aw fanam gudd mu yàgg taxawu soxna si yàgg ànd ak moom ci liggéey ñuy liggéeyal sëñ Bamba ak Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina di sant nag bu baax a baax a baax mboolem équipe bi nga xam ne ñooy ànd ak soxna si ndax wala fi dañuy wax ni euh, lu waay di def lu ne da ngay ñoo koy jëfle kii nga xam ne mooy sëriñ Xaalib Madina ànd ak soxna si muy guddi muy bëccëg lu soxla taxaw taxaw même bu ñu programmé woon sax suba ñu ni tey la Xaadim dina ànd ak caméra bu sëñ Seck mii euh, fenn fu nekk rek saa bu ko soxna si wooyee mu bàyyi lépp lu mu doon def bàyyi lépp lu mu doon wax dikk di wax ak defar loo xam ne soxna si munu ko munu ma ko keneen munu ko kon seen Xaadim ñu sant bu baax sant sa caméra bi waaye di sant sëriñ bi ni nga ko waxee te xam ne itam ku jàppale soxla si la te nit ku bëgg a dem ku ne il faut nga am boo xam ne ñoo lay jàpp ndax équipe bi ci àll bi équipe bii nekk Sénégal te bu ñu indee seen jëf ju rëy ji ñu taxaw leeral ko ba mu leer kenn ku ne la ci sa wàll dib cër ñu jox la ko ñooñu itam ñu ngi leen di sant ñu leen di gërëm man nag damay seen bàyyub taalu bi di seen magub taalu bi ñu ànd bëgg sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall yàlla na yàlla boole ñu dimbali yàlla na yàlla boole ñu dalee allahumma salli ala sayyidina Muhammad soxna am Yàlla Ndiaye Baye Fall soxna Jaara bu sa Paris Baye Fall Touba ca kanam Paris jëwriñu daayira maam Seynabou Ndiaye diaspora maa ngi nuyoo tey siyaar euh, di jox ñëpp seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi euh, euh, kilifa yi di nuyu bu baax sëñ Touba di sëñ Muntaxa di nuyu maam Cheikh Ibra di sëñ Amdi Modou Mbène Fall ah di nuyu sëñ Cheikh Bintu sama sëriñ eh, di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di nuyu bu baax Baye Malick Sarr mii ñu peggool ak sëñ xaadi Madina ñi ma àndal liggéey bi ak caméraman bi ak eh, soxna Aji Jaañ mii di sama lépp di ma wettali di nuyu nag waa diaspora bi di leen sant daayira yi ma àndal liggéey bi maa ngi leen di nuyu ni ko sëñ Xaadim Madina lime jarut ñëwaat di waa daayira maam bu njaay diaspora bi nga xam ne maay jëwrinu diaspora bi maam Seynabou Ndiaye may nuyu ëttu jëwrin yëpp ñu nekk ci biir jàmbaar yooyu di nuyu waa daayira subul salaam bi nga xam ne depuis 2011 ñu ngi fi muy daayira maam jaara boo xam ne euh, sëñ maam Mor Moutala moo ñu boobu di nuyu Paris Pôle 10 bi nga xam ne waa Touba ca kanam ñoo ma ko ubbil beral ma Paris Pôle 10 ne ma sa groupe Baye Fall la ngi noonu Paris Paul 10 Baye Fall international maa ngi nuyu di siyaare ñëpp di jox ñëpp seen wàccowaay di di sant nag ñëpp kàddu yi moom du bari ndax dama kontaan euh, di sant ñëpp rek euh, bañ a limaat di juum wala muy manqué ndax sëñ Xaadim daanaka képp koo xam ne ànd nga man jëfu tey ji wax na ko kon daal man dama doon barkeelu rek lu mënta ñàkk tey fekk ma fi nag ma fas yéene ànd ci yóbbu bi fas yéene ànd ak bagage yeeg ñii ko daan joxe bu ma fi newul ñu di leen sant liggéey bi kat mësta tardé mësta yeex ndaxte ñun dañu nekk ci diaspora bi toujours duñu fi fekk waaye li ñu warloo ci liggéey bi saa buñ ko defee mën a ci ñoom ndax danañ ko yóbbu nu yóbbu mucc ayib leeral ko ba mu leer naañ suñu bët tey daf ma fee fekk rek mais yu ci bari du ma fi fekk kon ñoom ñu jar sant lañ parce que liggéey bi moom ñi koy jëf moom lii rek lañ ci bëgg li ñuy jox ñu yóbbu leen ko fi nga xamante ne nii foofu lañu bëgg muy lu baax te lépp lu luñ leen ci ñaanal rek yal na leen dal ci wiiw yal na leen lépp liñ ciy def rek yal na leen fanqal musiba ak balaa dañ ragal te kenn ko ci ne ci ñoom dund fi cent yu amul benn ordonnance ay taalibe dëgg lañ ñu bëgg sëñ Touba ak Cheikh Ibra ñu ñeexal liggéey loo man mii de li ma leen di laaj ñu di ma jox nii ma di leen ko yóbbul fi bëgg ah, sant naa leen ci lool ci doy googu ñoom nga xam ne man doy naa leen ko maa ngi sant ñëpp nag du mu bàyyi kenn maa ngi sant di maasale ñëpp bàyyiwuma kenn sëñ Xaadim Madina tudd na ñëpp waaye mboolem groupe daayira boo xam ne rek maa ngi sa jëwriñ maa ngi lay sant parce que jëf ji kat nii rek la ñii dañuy jëf ci valise bi ñii jëf ci màggal màggalu maam Seynabou Ndiaye ji ñii jëf ci màggalu Poroxaan ñii jëf ci koor gi ñii jëf ci Touba ca kanam ji waaw kon boo ko xoolee at mi noonu lay tourné kon boog saa boo ñëwee di sant rek ñëpp ngay sant ndax ku jëful ci bii rek yaa ngay jëf ca bee kon kon suñ groupe yi ñu yore moom macha allah jëfandoowuñ ndax fi jamono toll waaye groupe bu ne rek fonk nga li ngay def yitteel nga ko kon yal na leen yàlla ak yonent bi ak maam borom Touba fay ñu yàggee ko di sant ñëpp nag Baye Malick sëñ Xaadim Madina suñ caméraman bi ak ak euh, sëriñ nga xam ne macha allah mooy denc bagage yi. te loo ko ci laaj nam nañ ko ko joxe la koy joxe waat moo ñu taxawu ci lu bari macha allah ñu ngi koy sant bu baax moom maa ngi sant ñëpp daal bàyyiwuma kenn di jaajëfal ñëpp nag di sant bu baax sëñ Cheikh Bintou yàgg fi loolu te wér faal. waa jër ngeen jëf mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew kàdd yi ngeen gis nag jëf jaa ngi nii wax ji am na solo waaye jëf ji rek moo am solo te yoonu Baye Fall jëf rek a wóor yére yu rafet yi ngeen gis muy garambu bi jees na yu rafet yeeg. bàyyi son yi bu yeeg turki njaareem yeeg xabtaan yeeg euh, parfon yeeg kaamil yeeg xasida yeeg sijaada yeeg kurus yeeg yëpp yi nga xamante ni yu baax la rek maraakis yeeg yëpp rek mi sarbet yeeg yëpp mi ngi jëm ci ki fi nekkal serafal muy sëñ Amdi Fall Modou Mbenda kon biir réew mi ak bitim réew Europe Afrique ba Amérique soxna am yàlla kum laaj ci liggéeyal sëñ Tuubaa na nga jël sa ñaq jox ko ndax moom loo ko jox mu jox ko ñi fi nekkal serafal son am la daa raw tey rawale moom lantinoor la boo ko joxee rek mu jokkoleel la mu jokkaleel la mu jokkaleel la te maam serafal dane woon góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla kon soxna Amy Yalla Ndiaye biir réew mi ak bitim réew programme bii nga xamante ne nii tëral na ko muy social Touba ca kanam muy màggal Touba muy màggalu Poroxaan muy koor gi muy màggal maam seeni bu Ndiaye ba ci wëlis wii nga xamante ni lañ war a jébbal naaru maam Khady mu jaar ci buntam muy Serigne Cheikh bintu Fall kon soxna am yàlla kum laaj biir réew mi ak bitim réew na nga ko jox ndax li leen sunu borom jox jox leen ko sëñ Bamba bu leen ko jox sëñ Bamba dina xew yi maam Cheikh na ne bu xewee koo ko jox du ko jël kon ñi ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh murtub liggéey bu ñàkkatul joxeetul xanaa war a tiitadi kon yaay booy bul tiit dara Cheikh Mandoumbe ak Cheikh Ibra Fall naw naa seen doxin bu xel demee ci lan daa diggee ndaw tiitati ñooñ kax fi ñoom dañoo jugoon bëgg yàlla waaye amuñu sëriñ waaye pëseefu seen nelaw ya mooy seen tawféexati ñu nag dañu amoon sëriñ mu dem ba nokki doom ba talay ndigal kon lay jeex na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Mbay Sekk sunu caméraman bii nga xamante ni at mu ne nu ànd ko lépp di rafet ñu ngi ñaan yàlla nañ ko ànd ay at yu bari ndax at yi yëpp soxna si fekk ko Sénégal waaye at mu ne aar buñ ko convoqué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 jërë ngeen jëf nixmal xalifatu cheikh bin suñ cheikh bintu faal xalafan mat na xalifa ci lislaam ku mel ni moom jafe na mbokki topp ci biir réew mi ak bitim réew yéen a ngi fii ci kër sëñ mouhamadou abdoulahi fall ndar feggoo xalifaam Euh, Serigne Cheikh Bintou Fall mi nga xamante ni mooy xalifa euh, sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar liggéey bi nga xamante ni mooy wëlisu euh, maam Cheikh Ibrahima Fall at mu ne Serigne bi jébbal ko ki fi nekkal Cheikh Rafal muy sëñ Amdi Fall Modou Mbenda bàyyam bu baax bi waaye daayira maam Seeni bu Ndiaye bi nga xamante ni soxna am Yela Ndiaye sunu yaay ji nga xamante ni moom la ñu feggool di taalib Serigne bi di jëwrinam sëriñ bi sas ko ko at mu ne soxna si ànd ko ak moom ren jii si soxna si indi na euh, addee ji far koo jé war koo jébbal Serigne Cheikh Bintou Fall Serigne Cheikh Bintou war koo jébbal baayam Serigne Amdi Fall moo dum benn xalif général de Baye Fall waaye ñu ngi fi fekk ku baax euh, soxna Rama Fall ibnu Sey Mouhamadou Abdoulaye Fall ndax di rakki Serigne bi Baye Malick Sarr mi nga xamante nii euh, mooy jëwrin soxna si ànd ak soxna si Serigne bi boole ko ak moom ak mboolem délégation bi ñu àndal Serigne ak sunu soxna su tedd si ñu ngi koy eh, siyaare bu baax a baax di gërëm bu baax soxna Amy Yalla Ndiaye liggéey bii nga xamante ni daayira yi ci biir réew mi ak bitim réew dajale nañ ko eh, teg ko ci loxol eh, soxna Amy Yalla muy ay koddaay yoo xamante ni muy wëlis woo xamante ni at mu ne soxna si dina ko dajale biir réew mi ak bitim réew jébbal ko sëriñam sëriñam jébbal ko xalifa général de muy sëriñ Cheikh Bintou Fall yàlla na sunu borom yàggal ko kon dañuy jox Baye Malick mi nga xamante ni. mooy borom euh, kër gi ak kër boo fiy dugg da ngay jaar ci bunt bi Baye Malick di buntu soxna si ci kër gi bokk ci daayira maam Seynabou Ndiaye association Mika euh, daayira subulu salaam ak mboolem daayira yi nga xamante ni euh, soxna si yor na ko foofu ca Paris waaye Baye Malick nekk ci daayira yi di ko jàppale ci liggéey bi Baye Malick yan kàddu ngay wax ci jëf ju tedd gi ngi nga xamante ni agsi na ci ki fi nekkal sëñ Mourou Abdoulaye Fall Ndar muy Serigne Cheikh Bintou Fall di xalifab Cheikh Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar te yàlla ak Cheikh Ibrahima Fall rek Euh, di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jëf kon Fall liggéey baa ngi nii soxna si ñëw na ànd ak euh, ni ñu ko wax ni mu ko waxee léegi soxna Rama Fall mii ñu bokk liggéey bi mu ne ko ci dimbali di ko ci jàppale bu baax a baax ak nun ñi sëñ Xaadim mii doon wax ak ak ki nga xam ne mooy sëriñ Loum ak mbooleem ñi nga xam ne bokk nañu ci liggéey bi soxna si mi ngi wax ni mi ngi lay nuyu bu baax Fall di la jaar di ñaan nga yàgg ci toogaay bii ànd ko sarak yi di nuyu sarak ji ak sarak yi ci yëpp di la siyaare di wax ni liggéey bii daf ko doon liggéey euh, daanaka mel naa ni euh, mel na ni yàgg na ndax dañuy wax yow daaw nga ko nga ko nga ko di ko defi nii waaye nag euh, liggéey la boo xam ni ca maam ya ñu ngi ko doon wax ci maam Seeni bu Njaay daana ko defal Sëriñ Tuubaa ci fóot mi ngi ko di ko wane ñu ngi koy leeral ci ay waxtaan jotaay yu waroo ah, kon su ko soxna si dee def itam te nga digal ko ko muy digal lu loo xam ne ni fekk nañ suñu mënoo daay fii ay yére yoo xam ne ko daan def ay dampe yu mag a mag def ko ay comme ñuy jaay fëgg jaay ni ñu ko daan defee muy lu bare bari ñu da ko fab di ko jox xalifu euh, sëñ Tuubaa bu fi nekkal sëñ Tuubaa nañ ko sëñ Abdou Lahat ba ci sëñ Abdou Xaadir ba ci sëñ Saaliw loolu Cheikh Modou Abdoulaye Fall daana ko def fii ñun ñëpp ñu ko fekk di ko ànd ak moom loolu nag yow it Fall moom nga diglewaat euh, euh, joxe ci ndigal Euh, soxna Amy Yalla Ndiaye ànd ak euh, daara yu bare bari liggéey bi nag Fall soo ñu am ci tuuti lu la ci leeral ndax soxna si doole sëñ Tuubaa ji muy liggéeyee ëpp na lu lu nekk ndax doole sëñ Tuubaa kenn mënu ko nat waaye nag moom dafay def léeg-léeg liggéey boo xam ne bi day leen wali su maam Serap Fall bi dafay am ñoo xam ne daf leen koy sant waaye du bàyyi kenn nag ndax ku jëf sa jëfit baax na waaye dafa am nag benn group boo xam ni su jotee ñoom lay sant wali su maam Cheikh Ibrahima Fall yii bu dee bés bésu maam bu jaay biit buñ ko taxawalee te nga ko def fii am na groupe boo xam ne da leen koy sant euh, am na bu dee Touba ca kanam am na loolu ñoo xam ne daf leen koy sant su dee maam euh, màggaluk sëñ Fallou ak koor gi ndog yi loolu lu nekk am na groupe yoo xam ne daf leen sant kon li ma bëgg wax mooy ñi mu àndal ñuy liggéeyal sëñ Touba ak bari na waaye li bari bari nag ci liggéey bi luñ ci liggéey lu ne luñ ci def luñ ci def lu ne jëf jooje dina ko fa fekk la fii ci jox la ko euh, ren nag dafa am ñoo xam ne groupe boo xam ne ñoom la ko sant ndax ñëpp mënuñoo bokk euh, li euh, dara lépp waaye nag lu ci waay def tam mu xam ne def nga ko ci euh, loolu nag li ko waral faal nga ñaanal ko ci ndax jigéen la ci ab gis di sa lépp waaye am ñu ko yaakaar lool ngir yàlla ak jëfam ji nga xam ne buñ ko jëfee jox ko ko dina ko fa delloosi ko fii ba ba nga gis ko loolu kon sëñ bi sëriñ soxna si nee na mi ngi lay ñaan nga ñaanal ko mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko bokkal waa Amérique waa France waa Espagne ak waa ak fu nit mën a nekk ak Sénégal fu te jëf ci jëf ji te bokk ci jëf ji nga ñaanal leen bañ yàgg koo man euh, te yàgg am xol bu andi jëf ji ba mu yegsi ci say loxo soxla si daal nee na mi ngi sant bu baax bi ko yàlla boolee ak yow ngay buntam ci kër Cheikh Ibrahima Fall di bunt ci Ndar Fall itam muy lu am solo loo xam ne lu yàgg la démb waaye tey it moom mi ngi ci jëf jëfin ji nga xam ne ji tubaarkàlla yàlla na yàlla euh, yàggal la fi faal te yàggal ko fi te yàggal fi ñi nga xam ni ñoo bokk moom muy équipe bii di sëñ Xaadim mi nga xam ni fu mu jëm ànd ak moom mu nangul ko lool ak Serigne Loum mii ak nun ñi nga xam ni yaanu booleeg moom kon soxla si daal euh, lii la waxoon ni suñu yegsee ba fi yow nanu fexe ba ngay ba nga dég ko xam le ni daal mboolem ku mu àndal di liggéey Sénégal ak Europe ak Asie euh, fu nit mën a nekk tey bokk ci liggéey bi tey jëf-jëf ji rek nee na nga ñaanal leen te jàppale leen euh, ci barke Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Modou Ablaye Fall mu baax moomee nga xam ni kër gii fii di Ndar Fall moo ko sancoon nekk fi ak noonu Sëriñ Cheikh Bintou Fall nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala bi ne mu ngi nuyu ñun ñëpp neena na nuyoo bii mi ngi ci jiital soxna ami yàlla njaay moom mi nga xam ne foofee ca France moom lañ fa def jëwriñi maam seen bu njaay muy soññee foofee liggéey bi yital ci itam soxna Rama Fall nag nee na muy rakkam ñu bokk Cheikh Modou Ablaye Fall liggéey bii di liggéeyu maam Seydou bu Ndiaye ci nekk Cheikh Modou lay Fall mu daan ko taxawoo mu daan ci taxaw ñi nga xam ne sëñ Modou Ablaye Fall moom mi nga xam ni moom la sunu borom yàlla féetale maam Seydou bu Njaay nee na kër goo dem kenn ku ne am na loolu yàlla féetale waaye fii ci kër maam Seydou Fall fii di kër maam bu Njaay sunu borom moom la ko féetale moom sëñ Modou Ablaye ndax li waral loolu mooy. maam Serap Fall dafay nekk ba wuy ji boromam sëriñ Modou Moustapha Fall ko fi liggéeyal maam Serap Fall liggéey bu rafet ba wàcc wuy ji boromam sëriñ Mortala Fall ne fi liggéeyal Serap Fall ba wàcc wuy ji liggéey bu rafet. sëñ Ablaye Fall Ndar wuutu ko fi moom itam liggéeyal Cheikh Ibra ba wàcc wuy ji boromam Cheikh Serigne Assane Fall wuutu ko fi liggéeyal Cheikh Ibra Fall ba wàcc wuy wuutu ko fi liggéeyal Cheikh Ibra ba wàcc wuy ji Amit Fall wuutu ko fi liggéeyal Cheikh Ibrahima ba wàcc wuy ji boromam Serigne Cheikh Jëmb Fall wuute ko fi liggéeyal maam Serap Fall ba wàcc moom itam wuy ji boromam nu ñaan Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall mbenn mii yàgg fi lool moom bi nga xam ne tey mooy maam Serap Fall France Gueye soxna mi Yelé Njaay mii moom la fa sëñ bi teg Amérique am nañu fa ne soxna Rama miit mi ngi liggéey ci biir réew mi ba gatanug màggalug maam bu Jaay sax waajtaay wi da koy def ci Masaalikul Jinaan ca Ndakaaru ngir waajale ko bésub maam bu Jaay bii ñëw waaye na sëñ bi ne loolu lépp nag mooy liggéey bi rek moo tax ñu yaatal nii di leeral ndax kër maam Cheikh Ibrahima Fall day génn kër kenn ku ci ne la nga taxawal te taxawal ko ci ndigalal Cheikh Ibra ñëpp a koy ànd ak yow loolu rek la sëñ bi doon leeral mu sëñ bi ne mi ngi seetaan fépp koo xam ne daayira maam Seydou Jaaye nga fa ñu fexe ba di jokkoo ak waa kër gi fii rawatina ko mel ni sëñ Malick Sall mii wax ak yéen wala soxna Rama Fall mii wala soxna Ami Yàlla Njaay mii nee am na yeneen i jawriñ yoo xam ni ñoo ŋànk daayira maam Seynabou Njaay ak daayira xidmatul maam Cheikh Ibrahima Fall bii nga xam ni Serigne Modou Ablaye Fall ko taxawaloo taxawaloon tudde ko xidmatul Lamp Fall nga xam ne bi fi sëñ bi taxawalee màggal gi cantuk maam Seynabou Njaay gi ci maam bu Buso ñoom la ko ci seen loxo ñu di ko organiser loola it Fàllu Jóob a ngi fi ak ñim ko àndal ñoom ñëpp itam ay jëwriñ lañu yoo xam ni ku jokkoo ñoom rek liggéey bi dina gën a yaatu sëñ bi nee mi ngi sant ñëpp képp koo xam ni yaa ngi yëngatu di ko jëme ci maam Seynabou Ndiaye sëñ bi nee mi ngi lay sant kon soxna mi leen jaay sëñ bi ne mi ngi lay sant ne li mu doon wax da ko doon wax ngir wax ko ngir ki ñu fi nekkal di ko liggéeyal muy Cheikh Modou lay Fall ndax ab liggéey bu ko kilifa liggéeyee ba bàyyee ko njabootam war ngay leeral ba nit ñi xam cosaanu liggéey bi ne sëñ bi ne loolu rek la doon leeral foofu daayira maam Seydou Ndiaye nekk ci biir réew mi ak bitim réew ngeen fexe ba boole seen bopp tegandoo di tegendoo ndax loolu kat Serigne Modou Abdoulaye Fall moo ko taxawal la ca dolli ko mooy ñu ngi lay sant baax soxna soxna ami yàlla ci liggéey bi yaa ngi ko seqal ca France ak fudul France ndax mel na ni wax nga ko ni ñi nekk Espagne ñu ngi ciy jëf seen i jëf am nañu féete foofa wax nga ko ni am nañu féete Amérique wax nga ko ni am nañu nekk ci biir réew mi am na ñu nekk ci yeneen i réew waaye mboolem koo xam ni mu ngi yëkk ci jëfam nee na di ko jëf ci lii nga xam ne moom Serigne Cheikh Bintou mi moo ko tuddee wëlisu maam Cheikh Ibrahima Fall nee na loolu Serigne Modou Abdoulaye Fall mu baax ma dimbali ko ci loolu yee ko ci na fii ñu toog fi la ko fekk mu toog nee na nee na booba daana ko jox am koddaay ay dàll ak i kawas ak i mbubb yu baax ci ci mag bu xasee bu demee fi barab ba dësiwaat indaaleel ko sëriñ muy yoo xam ne sëriñ bi da koy soxla sëriñ bi nee na am na bagage yoo xam ne màkk la ko jëlee indil ko ko am na yoo xam ne France yenn yeneen réew yi ba Sénégal fu mu gis lu rafet daal moom dina ko ëmb ba mu mat mel na mu mel mu ñëw jox ko sëriñ Modou Abdoulaye Fall daan na ko def waaye nee na li muy wax nii lépp li ko li mu ci jublu mooy li nu sëñ bi dimbalee ci lii moo tax Cheikh Ibrahima Fall ku ko teral sëriñ Touba nga ji sëriñ Bamba ku ko teral rasulullaay nga teral rasulullaay sallallahu alayhi wa sallam ku teral jëfe nga ndigalul sunu borom yàlla ndax moo ni julli leen ci moom te julli googee teraanga la sëñ bi de jërë ngeen jëf yow yàlla na yàlla bàyyi la na nga fi yàgg jërëjëf Fall amin amin jërëjëf Fall. jaara bu njaay li soxna jaara yordi ko jaay yaa ko musal waa njëre njaay songo ñu na yaa texe maam sëy bu njaay amatu ngañ ndigal jub na ci mbaar mii nga xamante ni mooy mbaarum maam seeni bu njaay pencum euh, sëñ Modou Abdoulaye Fall ndar ndar Fall ki fi nekkal muy xalifaam muy Serigne Cheikh Bintu Fall xalifa Serigne Mouhamadou Abdoulaye Fall ndar jox na rakkam soxna Rama euh, Fall moom sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar eh, jëwrinu daayira maam Seeni bu Jaay Ndakaaru ak yeneen gox yu fasantikoo ci biir réew mi ak bitim réew ci mbaar mi nga xamante ni mooy maarum mbaarum maam bu Njaay ñu àggale ko ba mbaar mi ni mu war a mel yëpp mu mel ko mu feggoog sunu yaay soxna am Yàlla Njaay jëwrinu daayira maam Seeni bu Njaay Paris diaspora Baye Malick Sarr di kenn ci sëriñ bi bokk ci eh, jëwrin yaay booy ndigal li nga xamante ni sëriñ Cheikh Bintou Fall eh, xalifa sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar yëkkati na ko mboolem daayira yi maam Seydou Ndiaye ci biir réew mi ak bitim réew muy mbaar mii nga xamante ni mooy mag mbaaru maam bu Ndiaye ñu àggale ko ba jébbal sëriñ bi caabi ji yaay booy lan ngay soññee ci liggéey bii nga xamante ni tey ji fii fii ci Ndar Fall moom la sëriñ bi soññee ngir ñu song mbaarum maam Seydou Ndiaye. bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum soxna am yàlla Ndiaye Baye Fallou soxna jaara bu sa Paris Baye Fallou Touba ci kanam jëwriñ daayira maam Seydou Ndiaye Paris diaspora maa ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp bu ngeen gisee suñ taxawaay bii dañoo génn léegi ci sëriñ bi sëñ Cheikh Bintou Khalifa sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar doon ko indal liggéey bi ñu doon liggéey ci walisu maam Cheikh Ibra bi mu yàgg liggéey te boole ñu ci ren di suñ ñaari at ñun ñu rek yuñ ci bokk mu koy liggéeyal képp ku fi toogal maam Cheikh Ibra di la ko jox ko daayoo màggal ñu ciy sant bu baax bañ fa daataa génn nag mu jox ñu ndigal ci ñu taxaw fii ci mbaar mi mbaar maa ngi ci buntu kër gi mbaaru maam Seyna bu Njaay ne mbaar mi kat dama bëgg ngeen taxaw ca mbaar ma defa appel dafa soññee woo ci ñëpp ndigal nag jafe waa diaspora bi ah man de maa ngi leen di woo ay jàmbaar ngeen de maa ngi leen di santati nag lii itam nag di ndigal kon na xeebuñu dara commencé nañ ko ci ba ci benn ton ciment euh, lu waay am fer ciment ko amul xaalis si am bagage yi indi ñu bagage yi mën a dem ci bâtiment lu ci waay indi rek ñu def ko ci mbaar mi nit ñu ko daan waxe xam naa nag waa diaspora bi duñ ci des benn yoon ginnaaw ndax amul benn liggéey buñ mos a tekki suñ loxo ñu des ci ginnaaw maa ngi leen sant di leen jaajëfal waaye maa ngi woo àdduna ndax maam Seynabou bu la ñuy liggéeyal sëriñ Moussa Ka wax na ko li maam jaar yor di jaay jaay ko maam Seynabou Ndiaye kon mbokki soxna yi ñoo ngi leen di woo ci mbaar mi nga xam ni mooy mbaarum soxna maam bu Ndiaye ñu ne ko fi màggalal fii ci Touba Ndar Fall màggalu soxna Seynabou Ndiaye nag mi ngi bëgg a yàgg Euh, sëñ Moudou Abdoulaye Fandar def na koy at bàyyi ko fi boobaak léegi ñaar fukki at la ak juróom-ñaar loolu kon diire na mbaar mii nag ñu taxaw nii ñaar fukki at ak juróom-ñaar yi nga xam ne moom la ñuy màggalal soxna Seydou Ndiaye fii dañ koy defee waa daayira Xidmatul Lamp commencé woon mbaar mi macha allah ci ndigalu sëñ Moudou Abdoulaye Fandar waaye ñu amaan ndigal ñun mboolem kuréelu maam Seydou Ndiaye fu waaye mën a nekk rek ñu jàpp ci mbaar mi ba mbaar mi mën a yemboog uh, tolluwaayu jamono mën a méngoo ko li nga xam ni moom la ñuy liggéeyal soxna si kon na fu daayira nekk rek ñoo ngi lay woo xidmatul ndakaaru ñu ngi leen di woo xidmatul mam seen bu njaay Richard Toll ñu ngi leen di woo Gambie ba wuñu fenn Mali ñu ngi leen di woo Abidjan ñu ngi leen di woo Italie ñu ngi leen di woo soxna Roqee Fall monsieur Abdoulaye Fandar moo fa nekk ak soxna Magu du Fatu moom itam macha allah jiite daayira international waaye ñu feggoo soxna Amiela Ndiaye mi nga xam ne ku ne xam na ko ci liggéey yi nga xam ne moom mooy liggéey Serigne Touba yi mu doon ci jàmbaar lool nag boo nee soxna Amy Yelène Ndiaye Baye Fall soxna Jaara soxna Amy Yelène Ndiaye Baye ci kanam waaye soxna Amy Yelène Ndiaye man Baye Fallu ci liggéey yooyu yëpp nag waaw ci du ci yokkat benn yoon ci du ñoom la àndal ci Paris ak ci nga xam ne ñoom la àndal euh, euh, doon jëwrin ak fu jëwrin maam Seydou Ndiaye nekk rek ñoo ngi lay woo eh, waaye nag kenn nga xam ne bàyyiwuñu mboolem jabootu Cheikh Mourou Laye Fandar gi bu ñu nee soxna maam Say Fall mi nga xam ni mooy suñu mag ñu ngi koy woo ak mbooleem euh, njaboot gi soxna Khady Sarr Fall euh, soxna Fat Fall Gabison di sama mbokki soxna yi soxna Mbène Kiné bàyyiwuñu kenn ndax ñoom it ku bëgg Serigne la te liggéey bi macha allah ñoo ko ànd xanaa man damay seen donga baay rek euh, bëgg seen waajur wa doom taal bi seen biir doon seen daalu weñ waaye a baax suñu tàmbalee mbaar mi naka am galas indi ku am añ indi ku am café indi comme ku am saako simaat indi ndax ñi nga xam ne ñooñu fiy liggéey it comme noonu lañ koy defee waaye ku am ton ku am ñaari ton ku am ñetti ton ku am karo ku amit euh, buntu fenêtre euh, ba ventilateur comme ni ko soxna Amy Yàlla waxee rek lépp loo xam ne dem ci bâtiment rek ñoo ngi ko soññu mbokki taalibe yaay bëgg nañ daal mbaar mi nga xam ne fi lañ di màggalee soxna su teel soosi soxna maam Seydou Ndiaye ku ko dégg rek nga xam ne euh, ndigal li jóg na ci sëriñ Cheikh Fall Bintu mu sëriñ nga xam ne mooy xalifaam di siyaare la bokk Cheikh Mourab Laye di joxo di wàcce kàddu yi euh, lépp loo xam ne nag jum na ci rek ñu xam ne moom baaxu sëriñ bi la sëriñ baa ngi ci biir mooy ñu jox ndigal ca taalibe amul lu dul ndigal ñu am ndigal ci moom moo tax ñu taxaw fii ci mbaar mi ngir bëgg mbokki taalibe yi ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo ba ni ko sëñ bi bëggee mu amee ni kon maa ngi wàcce kàddu yi di jaajëfal ñëpp wasalaam mi ngi toll ci wàllu euh, finition ku ne xam na ni kuule na waaye mi ngi toll ci wàllu électricité ak plafond ak ay clim yoo xamante ni yu mucc ayib ba màggalu maam Serigne Ndiaye gi Serigne Cheikh mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Mourou Abdoulaye Fall Ndar fii lay yendoo ak yéen ba bët set kon mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew sëriñ bi soññ na ñëpp kon dañuy jox suñu Baye Malick Sarr mu ñaanal ñu ñu yëkkati jotaay bi Baye Malick lan ngay wax ci mbaar mi. sant yàlla bu baax rek bi nu amee ndigalal tàmbali ko mu dem ba yegsi fii ñu amaat ba leen ndigal ci sëriñ Cheikh Bintou Fall mu jox ko jëwriñam yu mag yu sell yu baax yi soxna Amy Yara Ndiaye mii nekkal ko Paris ak Espagne ak bitim réew gépp di fu yëngu ngir jëmmi maam Seynabou Ndiaye waaye rakam ju tedd ju baax ji di soxna ma Fall nekkal ko fii ak Ndakaaru ak fudul Ndakaaru ci maam Seynabou Ndiaye ba ñëpp xam ko ni mu ko ni mu koy defee wala fi nag dañuy wax ne ndegam ña ca uh, wala ndoo ba daanu ca teen ba ay si ña ca pind ba kon may itam damay woo mboolem koo xam ni yaa ngi doon daayira maam Seynabou Ndiaye tey dégg sama kàddu gi nga xam ne dañ ko sosoon te di ko ànd di ko liggéey waaye fédération bi nga xam ni moom la ñu sëriñ bi defaloon muy euh, fédération fi xitmati maam Cheikh Ibrahima Fall te sëriñ Cheikh Bintu defal ko muy Sine Saloum muy Kaolack ak Fatick ak ak ak ak euh, Kaolack ak Fatick ak Kaffrine nga xam ak ñi dëkk Sine gépp kon ci barkeb soxna yii ma teddal muy soxna Ami Yàlla Njaay mii ak soxna Rama Fall mii nga xam ne liggéey bi dañ ko teg ci seen i loxo boole wàll nu ci nu seenu dongo fas yéene ànd ak nu woo ak fu ñu jëmee ak luñ ñu def loo nu fas ko yéenee jëf kon loolu rek laa ci teg seen xaalib di ñaan ni ko sëñ bi waxee yàlla yàlla barkeel ko te yeggale ko ci barkeb Cheikh Modou Abdoulaye Fall suñu yaakaar ja